ci seen mobilisation bu rafet bii di nuyu jigéen ñi di féliciter waa f ñi nga xam ñoo fi woote lu réy lii ma ne président Macky Sall ndax dina nelaw tey li wóor mooy du nelaw parce que tey wan ngeen ko ne ab askan si jógee benn dictateur du taxaw ab askan su jógee benn pexe dictateur du jàll te taxawaay boobu ngeen wone tey fii pour wax ko ni li mooy waru la bokk waru bokk ci nii wala ca naa beneen bi mooy na bàyyi suñu doom yi ñu ak suñu càmmiñ yi mu tëj ci biir kaso bi te tegu ko fenn ñetteel bi mooy na bàyyi bëgg torpiller jërëjëf le les du jeu électoral ñeenteel bi nag mooy ku bëgg bokk candidat saf moom na bàyyi mu mën a bokk kon nag tey su tëddee du nelaw parce que nag ma dama bëgg jeexal ci ne Abdoulaye Wade def ñu waxoon maa waxoon waxeet mais Macky Sall nag boobu ba léegi mhm. mu ngi naan wii nii wii nii non askan wi nag tey nee na ko c'est non c'est non c'est non jërëjëf jërëjëf voilà mbokk internet yi ba tey euh, ñu ànd ak yéen euh, si euh, discours su ko defee rek ñu continuer ba tey ak li nga xam ne Mamadou Lamine Diallo CRD se prépare Amadou Tidiane Sall yow tamit sa kalpe ñëw na fi amul xaalis amatul xaalis boobu laissez asalaamaaleykum mbokk Fay F24 man de booy tam moo leen jàll bu tekki ba loxo yéen pour man troisième mandat bi xool Sénégal réglé Macky Sall bokkul loolu Sénégal réglé waxatuñ ko man mooy il faut libérer les prisonniers il faut libérer les prisonniers dafa doy on en a il faut libérer les prisonniers man loolu lay xew wasalaam Fatou Fatou ñu woo monsieur Arona Coumba Ndoffène Diouf Arona Coumba Ndoffène voilà Maître Tine fait une excellente suggestion ndaxte bu ñu ko fàtte fii ñu taxawoon 2012 fii la Mamadou Diop bu Mbour taxawoon di xeex li ñuy xeex ñu jël bakkanam ñu def benn minute de prière ku nekk ci sa ngëm-ngëm ñu dugalaale ci professeur Malick Ndiaye fii la daan taxawandoo ak ñun une minute de prière yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp f di profité ci occasion bi di jaale le camarade Pape Alioune Dieng mi ñàkk soxnaam bu yàggul. yàlla na ko yàlla xare àjjana mu doon doom ci président Djiboka yàlla na leen yàlla dajale fële ci àjjana mettin jërëjëf euh, mbokku Sénégal maa leen di nuyu ci seen tur ak seen sant euh, di leen. Euh, maa leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di leen jëfal ci taxawaay bi je pense que tey ku fi gis mbooloo mi fi teew xam na ni rien ne sera plus comme avant askan bi ware nañ tey seen bopp ware nañ ni doole ji ñoo ko jëbal Macky Sall te doole ji ci ñoom la jóge te ci ñoom lay dellu loolu bu ko xamut moom mooy mu ngi ci guddi bi nga xam ne bët set gudd lu ma ciy teg moom mooy ci fan yii di ñëw ñu ngi lam-laame que Ousmane Sonko membre F24 boo moytuwut danañ ko téye maa ngi profité ci tribune bi ne ko mu moytu loolu moytu ñu koy digal loolu bu loolu weesoo moom mooy mbirum troisième mandat bi moom jarta nekk juriste jarta nekk avocat nañu seet ñaata yoon la Macky sàll dem au pale au conseil constitutionnel yëkkati loxoom comme ni ñu koy waxee waat dañu ne nul ne peut faire plus de deux mandats mu yëkkati loxoom waat telluwaat yëkkati loxoom waataat donc mbir bi farankulaayu na donc lu mu ciy tegu moom mooy tey même bu dee xam na ne du bokk dana fexe ba am ci nga xam ne dana bokk wattu ay intérêt ak ay yi nga xam ne moom la bëgg a préserver loolu nag boo leen ko bañee am en tout cas moom mooy ngeen fexe mu doxal yoon moom mooy lan ñu jëbal décision bi nga xam ne moom la CEDEAO joxe ne mbirum parenage dafa jalgati yoon Macky Sall ak juróom benn weer pour joyanti ko ba sànq ci suba mu lànk ba carré ne du ko jëfe te CEDEAO ba ko jox mandat merci jërëjëf merci beaucoup jërëjëf Mertin jërëjëf monsieur Arona Coumba Ndephone Diouf Bokk Yaakaar du Sénégal tey jii li wóor mooy suñu constitution fii la taxawoon en 2011 di ko xeex en fii la taxawoon di xeex régime u Ablaye Wade ndax troisième mandat l'histoire s'est répétée ñu dellu siwaat fii ne dañuy xeex Macky Sall mi nga xam ne xeex bi biñ ko doon xeex suñu wet la nekkoon di xeex ak ñun bon le combat ñun de def nañu suñu wàll combat bi mooy yéen la jeunesse yéen a yor combat bi vive la jeunesse sénégalaise yéen a war a xeex wan Macky Sall ne réew mi yéen ay avenir a war a xeex won toute la nation l'intérieur et l'extérieur l'international wone ne troisième mandat du fi am na Macky Sall libérer les prisonniers yi mu tëj na Macky Sall bàyyi tous les sénégalais yi war a dem aux élections de 2024 ñu présenter 2024 xeex bi xeexu jeunesse la seen xeex la yéen ci combat bi dem leen ci yéen a gagné allah Merci. Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Tidiane Dièye avenir Sénégal bi ñu bëgg Omar sa carte mi ngi fi ak sa calpe moom tamit amul xaalis ma réew bi aji réew bi merci Daouda salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum citoyens du Sénégal salaamaaleykum les démocrates du Sénégal salaamaaleykum les mbokk yi suñu présence ci place bi c'est la preuve irréfutable de l'échec politique de Macky Sall ñu bëri wax nañ ko en 2012 fii la ñu nekkoon ak moom mu ñëw indaale benn mer gàddu bu poussiéreuse ni day fanaan fi waaye Macky Sall depuis 2012 mu ngi bàyyi askan wi ci guddi goo xam ni une nuit cauchemardesque askan wi yëpp nekk ci ay jafe-jafe. Macky Sall est nerveux, Macky Sall est devenu violent, Macky Sall est minoritaire, Macky Sall est déficitaire kon lu dul Macky dégagé bàyyi Sénégal mbokk yi askanu Sénégal lii ma gis tey c'est très rassurant ça montre que ce peuple est debout et c'est un grand peuple Macky Sall ñoo ngi koy wax lenn C'est pour son bien et c'est pour le bien du peuple sénégalais. On lui a amené une démocratie fii la ko fekk démocratie boobu moo ko indi au pouvoir il a trahi les engagements qu'il avait pris ñu koy wax ni léegi na arrêté te fi ma ko wax je suis venu ce matin de Ziguinchor maa ngi leen di indil nuyoo waa Sénégal waa Casamance yëpp ñu woo waa Ziguinchor yëpp. merci et j'envoie une pensée positive. merci fraternelle et solidaire à notre ami Ousmane Sonko. merci beaucoup Cheikh. Daouda mbokk yi wax ji jeex na Daouda l'a dit nañu taxaw takku. avec le F24. waaw. pour la libération des prisonniers politiques. il y en a plus de 400 nañu leen libéré ñu dem Sénégal te Macky libéré suñu réew merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup Cheikh ma réew ñuy woo le président des serviteurs Pape Djibril Fall. Pape Djibril Fall. les serviteurs. président Pape Djibril Fall. doon lancer un appel benn adversaire la ñu am muy Macky Sall benn adversaire fi manqué respect bu marqué un but contre le du camp na drapeau yëg. ah non non salaamaaleykum salaamaaleykum dégg ngeen ma may leen ma may leen ma